leen di nuyu góor jigéen euh, maa ngi tudd Basirou Ba euh, responsable jeunesse benn Bokk Yaakaar bu Gorete Diwane euh, tey jii nag day fa am lu ñuy ñaxtu li ñuy ñaxtu ci suñu village yi mooy dafa mel ni ñun bokkuñu ci Sénégal ndax li ko waral mooy di ñun dañoo jege commune bi mel ne waa commune bi wala président Macky Sall def ñoo fàtte ci lépp nag def ñoo fàtte ci lépp te village yi may bëgg lim muy Gorete bii ñu nekk tey ak euh, village bu ñuy wax Mbap ñu gën koo xamee ci Saabeey village bu ñuy wax Tene Ndulopol saw Sawkaari Kër Gànna Jaañ Kër Lembe ñànge euh, village yooyu yëpp tey ji ma leen limal fii amul benn village bu ci am électrification amul ñu am lu ñu ndax naqari nag ñu am lu ñu naqari ndax ñun kenn depuis 2012 ba léegi président Macky Sall la ñuy votel ci suñu ñetti bureau yu ñuy vote ñëpp mën nañ ko seede à chaque fois bu campagne jotee dafa am ay ministres yuy wàcc fii ci terrain bi ñëw di ñu def ay promesse yoo xamante ni amul benn promesse buñ ci réaliser amul loolu nag ñun euh, jeunesse Goreté diwaan dañ cee tay sonn ci damm ci léegi nag. bu fi jigéen waree am doom dañ koy teg ci sareetu mbaam di ko gàngar gàngaree mun naa am doom ci àll bi ndax amuñu poste santé amuñu courant. ci lëndëm la ñu nekk ba tey ci lëndëm rek la nekk ba léegi ñu jigéen ñi pour ñu mën a dem wollu ji wala ñu duggi marché dañuy dox 2 kilomètre dem ko suñ tànk ñib suñu tànk ak élève yeeg yëpp dañuy dox si seen tànk di ñib si seen tànk vraiment loolu metti na lool ñun nag président Macky Sall rek lañ tàllal loxo doy moom lañ musa tàllal loxo te moom lañ tàllal loxo ba tey ñukoy ñaan nak mu ñu bu baax nak vraiment. wa yan jafé jafé yeneen jigen ñi batay rek damay ñew ci ñom ndax ñom buñu waré na ndox ndoxu xorom lañ am ndoxu Kourou Mbacké bi ndoxu xorom la xorom jigéen bu fi ëmb rek da ngay yoré xorom ndax amuñu ndox bu neex loolu itam suñu jafé jafé la ak euh, nu de basilier yi ñu fi jang, ba génn itam suñu jafé jafé la ci xeyu ndaw ñi normalement war nañu cee dimbale ñooñu tam ndax di dimbale sa élève ba mu jàng ba pare mu war a am fu mu toog muy taxawaalu it neexul ci xolu waajur te loolu it normalement bari na fi jërë ngeen jëf loolu rek côté financement itam ñu jigéen ñi wax dëgg yàlla amuñu ci benn jàppale amuñu ci benn jàppale amuñu benn financement ñun daal dañ ñoo fàtte ci biir rek liñ mën a wax daal wax dëgg yàlla dañ ñoo fàtte ci biir rek amuñu courant amuñu ndox amuñu financement